dañu ne bu ñu neexee ku nekk demal boppam kuréel élection mën nga am walla nga ñàkk waaye loolu du doon lu gën pour Sénégal lii gën mooy ñun ñi nga xam ne nekk nañ opposition te ñu bari ci ñun nag nekkoon ci pouvoir bi xam li nga xam ne noonu la mbir yi war a doxee ñu fexe boole suñuy doolee benn ndax ñu dimbalee gën a mën a taxawu askan bi mais ñaar anam yi ñuy defee élection législative maanaam raw gàddu ci département yi gis nañ ne ci wàllu élection bu ñu tasaaree baati mën nañu nërmeelu kon li ñuy wax coalition jàmm ak njariñ ak sàmm sa kàddu ak takk wàllu senegal toog nañu siq ay waxtaan yoo xam ne yàlla def na ci sutura ba ci ñaari anam àndandoor nañ ko décider dem ci élection yi